Euh, en wolof euh, ñu ngi leen di sant bu baax si wuy si bi nga xamante ni euh, membre presse bi wuy si nañ ko damay fàttali ginnaaw bi ma leen nuyoo ba noppi ni fan yi ñu génn dafa am ay taw yu suñu borom dogal mu wàcc ci réew mi diggante fukki fan ak ñeent ci weeru août ba jàpp fukki fan ak juróom-ñeent am ay taw yoo xamante ni am na lu mu indi ci yenn goxu réew bi ba ñu am euh, li ñuy tuddee mbënd liñ ci gën a ràññee mooy euh, gox bu mel ni Kër Massar gox bu mel ni euh, Rufisque gox bu mel ni Pikine ak Guédiawaye fii ci région wu Dakar waaye su ñu demee ci yeneen région yi tamit région wu Kaffrine am na ci ay gox yoo xamante ni ndox mi am na ay jéye yu mu fa indi bu ñu demee gox bu mel ni euh, région Diourbel tamit ci wàllu Touba ci Kër Ñang quartier Kër Ñang ak quartier Ndaamatu waaye tamit ci wetu marché Ocass ak lépp li nga xamante ni laal na mbal bu ñu demee également euh, ci. région wu cees bi nga xamante ni ci tudd traversé nañ ko léegi bi ñu jugee Dakar donc suñu jaaree cees laata ñu yegg région Diourbel gis nañ ni foofu tamit am na nay zone suñu demee fu mel ni Joal mais bu ñu demee tamit fu mel ni Suun Séeréer ci wetu aéroport bi am na ay gox yu bëri yoo xamante ni ndox bi am na jafe-jafe bu mu jural euh, ñi dëkkee ci gox yooyu ma tudd léegi mu doon loo xamante ni bi mu amee ba léegi service su état bi ñu ngi ci liggéey li jëm ci wàllu pomp wala li jëm ci wàllu taxawu ñu ngi ci nekkoon waaye dafa am mbir fu muy tollu te noonu la tëddee ci wàllu doxalinu état su fekkente ni dafa aju ñu gën a baral wala ñu gën a euh, yokk li nga xamante ni moom la ñu waajaloon ngir taxawu askan wi dafay laaj. li ñuy wax plan Orsec ñu déclenché ko ci loolu nag le président de la république joxe ndigal ni loolu di plan Orsec nañ ko dal di tëral suñ ko xesee tëral lépp day mujj wuy ju wuy wuy si ci ñu gën a euh, organiser wu à partir di fii di ministère de l'intérieur lépp luy service su état jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy mbënd mi euh, ñu indi seen xam-xam indi seen xalaat waaye tamit ministère des finances bi nga xamante ni moom moo yor wàllu keesu réew bi directeur général budget teewal ko fii ñëw toog ñu xool naka la ñuy saafaree saafaraa ci ni mu gën a gaawee ak ci ni mu gën a baaxee li nga xamante ni mooy euh, jafe-jafe yi nga xamante ni euh, suñu mbokk yi yi nekk ci yenn gox yi am nañ ko ginnaaw bi suñu borom dogalee taw yooyu wàcc ci réew mi euh, loolu nag. mënuñu ko def lu dul nii dañuy déglu ku nekk ci sa xam-xam ci li mu màcc jëmale ko ci wàllu doxalinu doxalinu état te soxal affaire mbiru inondation ñu déglu la déglu nañ service su état yi nga xamante ni yëpp dañuy liggéey ci loolu déglu nañ ministère des finances wax nañ ñu li nga xamante ni moom lañu gis waaye wax nañ ñu tamit li nga xamante ni moom la ñu xalaat ci saafara plan Orsec niñ ko tëralee tamit dafa am ay kuréel ci biir yoo xamante ni dañuy dal di bàyyi lépp lu ñu doon def jublu ci taxaw ngir saafara jafe-jafe yi nga xamante ni nit yi nekk ci ndox mi yépp ñu ngi koy jànkonteel tey te pour mën lool li ci jiitu mooy euh, pompe gël ndox mi génne ko fi mu nekk expliqué nañ li indi ndox mi waaye ginnaaw bi nga xamee problème ba pare bi nga gisee ni problème lii moo ko indi ci fan yii ñu ñëw li ëppal solo nit ñi ëppal solo gouvernement mooy solution fi ñu nekk nii du ngir def réunion pour def réunion pour gis ni lii moo xew ci gox bi walla loolu mooy li ci jiitu mais loolu bu ñu ko defee ba noppi lenn rek moo soxal population yi lenn rek moo soxal état bi mooy nañu am solution fexe saafara seen jamono seen saafara li nga xamante ni moom lañ jànkonteel ci problème woyofal ak gën a rataxal ba ñu delluwaat ci ni ñu doon dundee laata ndox mi di ñëw loolu nag ci la ñuy dal di jublu bi ñu waxee fii no ba noppi dañuy dem dinañ dem ci terrain bi bu ñu demee ci terrain bi xool li nga xamante ni moom lañ jànkonteel suba suba suba incha allah tàmbali nañ ko sax biig plan Orsec bi bi mu tàmbalee rek ci saase ndaxte plan Orsec bu tàmbalee ni ñuy doxalee avant plan Orsec ak bu plan Orsec tàmbalee dootul doonati benn ndaxte jàmp bi nga xamante ne ni euh, situation bi jàmp na ko jàmp bi nga xamante ni nit ñi nekk nañ ko ci jafe day tax du ñu topp. yoon yi ñu daan jaar ngir mën a lijjanti problème yi yoon yooyu dañ koy mel ni ku ko teggi bu ñu waxee ku dégg olof dëgg dañuy wax nii bu ñu doon jaar ci yoon wi léegi ci ñàll la ñuy jaar loolu mooy raccourci pour jéem a gën a euh, baral solution yi nga xamante ni moom la ñuy indi moo tax démb sans xaar jël nañ juróom fukki hydrocureur tey mi ngi ci banlieue bi ñu commencé euh, benn partie ci yenn département yi commencé ŋàcc ndox mi jël nañ tamit ay moto pompe yoo xamante ni toll na ci téeméer ak juróom fukk ñu tàmbali ngàcc waaye loolu tàmbali la mais ci liggéey bi nga xamante ni dinañ ko wéyal ci fan yi dinañ gën a baral gën a xool nu loolu yëpp yéwénee en attendant lii nga xamante ni directeur général ADM waaye ministère ministre de collectivités territoriales sama naataango euh, Omar Gueye nga xam ni bii mbir bi tàmbalee ba tey daanaka Kër masaar la dëkk euh, wax leeral nañ ko liggéey bu am solo. bi nga xamante ni président santaane woon na ko daaw bi mu demee Kër Massar jëmale ci wàllu fexe ba ndox mi nga xamante ni daan nañ jàkkoonteeg moom mu am ak soppiki coppiku bu ci dikk loolu noonu dafa am benn lu ci des tuuti ci liggéey bi lu ñu waroon def ci fukki weer ak ñaar ñaari entreprise yi dañu waxoon ni ci fukki weer lañ koy def waaye baral nañ baral ba ci juróom benn weer soo jëlee téeméer bu nekk ci li ñuy xaar ci liggéey bi daanaka juróom fukk ba jàpp juróom-ñeent fukk juróom-ñeent fukk jot nañ ko ci def daf ci am nag benn jafe-jafe bu rëy boo xamante ni ci wetu Kabil Baas daf ci am ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk yoo xamante ni dañu war a def raccordement bi ngir ndox mi mën a jaar foofu dem ba forêt mbaaw dem dem ba forêt classée wu mbaaw bu fa jógee dem marigot wu mbaaw bu jógee marigot wu mbaaw moom dugg ci géej gi mais tant que raccordement boobu di ñaari téeméer ak juróom fukki mètre amul jafe dina am ngir ndox mi mën a dem ni nga xamante ni moom lañ ko xalaatee woon li ko waral nag mooy ministre des collectivité territoriales leeral na ko léegi bu ñu ñëwee ba foofu ni ñu tabaxee dëkkuwaay ak li mu aju ci gas buñ ko defee mën na indi jéyee ci li nga xamante ni mooy kër gi fa nekk loolu nag ay solution ñi ngi nekk avec euh, entreprise yi mais aussi même le génie militaire euh, nga xamante ni mooy waa l'armée bi ñu ngi toog fii ñu ngi leen di saluer Euh, dinañ ci euh, euh, góorlu ba fexe nu mu gën a yéwénee loolu moo doon ci gàttal kàddu yi nga xamante ni bëggoon nañu leen ko rotal li ci des mooy fexe ba solution yi ñu indi ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu la ñuy yëkkatee réunion bi jërëjëf.